salaamaaleykum mbokk yi ñoo am mbégte di sant buur yàlla borom asamaan suuf di kaat fii seen jataay Sénégal ca kanam Sénégal ca kanam wala suñu réew mi ni ñu koy xalaatalee xool yi ko gàllankoor si fànn yëpp jëm leen di saafara ngir réew mi suqaliku réew mi taxaw réew mi yegg ñu ñëpp fa ñu bëgg mu yegg Sénégal réew la moo xam suñu borom di borom asamaan suuf da ko beral loxo ndax ñun dara manqué wuñu te dara jomm lépp lu doomu aadama aajoo si kaw suuf ngir jëm kanam suñu defal nañu ko du di suuf su nangu di taw di ay dex di ay déeg di ndox mu neex di commune ci biir suuf si commune ci biir géej gi di li ëpp solo ay nit yu am xel xel rek koom la saa nit jëlee xelam daas ko nàmm ko bës ko sotti ko xelli ko nasal ko xel moom da koy jural yiw yoo xam ne njottam mëne si woon a yegg sax lu tax ñun Sénégal nag ñu am xéewal yi yëpp waaye ba noppi ñun suñu réew mi béggaguñ si ñun béggaguñu si dëkkuwaay lekk ak naan dama ko ñëw cet mbay napp sàmm cosaan ak aada góor ñi ndaw ñi mag ñi jigéen ñi liggéey ñun yooyu yëpp tey béggaguñ si lan moo ko waral ak lan mooy saafara si bés bu ne dañuy am gan yoo xam dañu fiy dikk ngir loolu ñu joxe seen xalaat tey ñu ngi si ànd ak Biram Ndek Njaay Biram Ndek Njaay moom euh, bindkat la di yëngatu si lépp loo xam ni dafa jëm si wàllum cosaan ak aada ak wàllum euh, dundin ànd si tamit ak Mamadou Ndoye Bane Mamadou Ndoye Bane ñu xam ko bu baax ci réew mi si wàllum yëngu bi muy yëngu si wàllum rajo yi ak euh, télé yi Birame Ndek Ndiaye di la nuyu la dalal la ziar. Euh, jërëjëf euh, Mamadou Sy Tounkara ñun ñoo lay gëral bu baax a baax ci fi ngi ñu permettre ñu waxtaan ak Sénégal yi. yow yaa bind téere bi di les industries culturelles au Sénégal l'exemple de la musique mu doon lu lu néew Sénégal moom ñu bind si fànn bi ñu néew lañ te yow wane nga ko balaa loolu it. au fil des émotions moom maanaam ay euh, ay poésie la euh, ay poème moom mii euh, biram Ndek Ndiaye moom moo ko bind am na it benn lu siiw lu ñuy faral dégg Lamine Ndiaye di ko wax moom benn way la benn poème toujours debu moom biram Ndek Ndiaye moom moo ko moo ko bind Modou Ndoye Bane yow di la nuyu la dal la ziar. ñu ngi lay ziar di yow moom doo fi doo fi gan. <laughs> Ah, sama wëllëre yëpp waa TFM. Mhm. ñooñu ñu leen di delloo njukkal ah, Buuba. waaw Buuba moom sama nee na mi ngi lay. ah Buuba Buuba moom kontaan ci yow daal sama doomu ndey la kooku moom suñu borom moo ñu boolee <laughs> Mami Diop it ma ko du ma ko fàtte. Mami <laughs> ah, la de sama féete moom ku mun tooñ la nag. waaye sama féete Biram euh, yow. da ngay yëngu si wàllum tey boo doon leeral li ngay yëngu lan ngay wax. Euh, maa ngi yëngu ci aada ak cosaan euh, di bind. di am loo xam ne day ñëw ci sama xol ma jëm ko séddoo ak askan wi. may ñu benn jox ñu benn ko. Euh, am na fi bu ma defoon ci coupe du monde 2002 mu méngoog sax sa émission moo tax ma kontaan ci trop parce que li am solo ci nii rek mooy jëm ca kanam mooy fukk ak benn ngi ci biir mu jaral leen di daw ba miir. askan wi ànd ak ñoom ne li ñuy sàkk ñoo ko moom li ngay def soo ko mënee niñ koy defee soo ko gëmee dara du la gaaw a jëngal su dul bàkk bi lay tàngal def naa yeneen tamit yuy tax naan euh, ak comme euh, ak euh, sunu xarit Aline Mbaye Nder mm-hmm. muy wax gune doom bi wax ak waajur bi wax ak doomam mm-hmm. nan ko fàttalekul doom bés dina ñëw ma dem bala li ma fi bàyyi bëriwul jéem ko aar sakkanal ko ngir sa doom sama sët fekk fi dara jant baa ngi so damay ñëw rek di la gunge ah lii de moom euh, mais ñun tey Sénégal lu tax euh, xam naa daf ñuy lii rek euh, ubbil bunt ñu dugg si si si ñu soobu si mbir mi tey ñun du lii la ñuy dégg tey tey leneen la ñuy dégg yeneen wax yoo xam ni fla fla yu bëri barigo ay ñàkk xorom lii moom ñu koy waaw loolu daal dëgg dëgg dañ koy rëccu di ko jooy parce que xalaatal tey xale yi mm-hmm. su fekkoon sunu doom yi ñu am juróom-benni at juróom-ñaari at lu mel nii la ñuy wax. Mhm. di ko way di ko baamtu. Mhm. loolu dafa am jeexital bu muy def si seen xol seen xel seen xalaat. waaw mooy léegi dafa am ay rôle ak responsabilité ci ku nekk ci ñun commencé ko nag aussi ci artistes yi parce que bu ñëpp toogee nga ne man may wax la nga war a wax war nga ko xool nga seggaat ko kàddu dañ koy wodd parce que bu demee doo ci toppaat naan xool ma ma jagalaat ko xaaral ba mu pare. nga defal ko sa bopp soo ko mënee soo ko mënul nga oo ñeneen comme cinéma. Mhm. dafa am kii acteur la kii day bind kii day def air bi. Euh, dafa mel ni tamit kër su ma la ko misalee kër mun nga nekk maçon du yow rek yaay def sa kër. waaw comme mun nga nekk président du yow rek yaay jagar réew mi. mun nga nekk ministre. il faut mu am koo xam ne moo yore karo yi. dëgg la am ku nga xam ne mooy yore électricité bi ki yore peinture bi noonu la lépp di doxalee parce que munuloo ay ci lu ne. waaye li am solo ña lay ànd yow. nga leen di seet te muy nekk nit ñu dëgg ñoo xam ne yàlla ak seen réew rek leen tax a jóg. Hmm. loolu ku koy def ah te li ko war a lal tamit mooy xam-xam parce que li ngay wax boo ko dul gëstu doo ko xool doo ci mën a sori. ah ñun nag Sénégal fii euh, du ñu demee xam-xam tey jikko yi doy na waa te liggéey dafa mel ni ñun ñewewuñ ko bu baax mais bu fekkee yow euh, xam-xam newu fii euh, jikko yi newuñu fii liggéeyoo. mais mënoo jëm kanam. dina jafe nga jëm kanam parce que am na benn proverbe buy wax naan. Hmm. sa xar. da nga koy takk denc ko ba pare soog ko dénk yàlla. est-ce que. Euh, li waral loolu mooy euh, gis nga man loolu laa wax su fekkoon ne man ci jamono jii ñu toll maa doon créer parti politique. Hmm. kaddu ndaw laa koy tuddee maandu. maandu boo maandoo ci loo xam ngay dugg boo maandoo loo moomul doo ko laal boo maandul doo def loo warta def boo maandul boo maandoo de. lu hmm. bëri da nga ko danga ko jomb. di nga ko ragalit sunu mag ñi baax ñi xool leen. dañ doon bind bàyyi fi maam Maodo Malick. maam Cheikh Ahmadou Bamba. maam Baye Niass Kunta Serif yi xaadri laayeen yi la partout. ku xool ci ñoom. ah ñi ñoo maandu te adduna li gën am solo. toujours xool bu mbir amee ñu ne yow yaa tooñ. mais biram ñun ñun tey suñu réew. Euh, xam nga yow da ngay yëngu si wàllum euh, culture. maanaam daal cosaan aada ak dundin xam nga moom mooy mooy dundin. Euh, ni ma ko sama mag Cheikh di waxee saa su ne. dundin ak nekkin yëpp voilà. dundin ak nekkin. waaw léegi ñun. Mhm. su du dundin. Mhm. ñi nga li ñi nga lim léegi. Mhm. ñun du ñooñu ñooy suñuy royukaay. waaw mu ngoog dañoo manqué dañoo rafle royukaay xam nga li am solo léegi fecc na sàcc na kàcc na dañ koy wane waaye. te surtout bu bu rafetul ba. fecc sax mën na rafet. waaw dafa war a rafet. waa li ñu waroon di def léegi au lieu ñuy jël micro yi ah di jël caméra yi yëpp di ko jox ñi waratoon a wax am na te dañ ne ci ci ci ci sunu diine li ngay wax bu gën a rafet tekk tekkaaral waay waay noppil. est-ce que léegi dee ko xool muy ci politique muy ci sport pour ñu ràññee la yaay génn rek di yuuxu ay temps sax ngay wax kàddin yu rafetul. mais li gën a garaaw mooy ay temps boo ko defee ñu wala neexal la. Euh, boole la ci waaw mais tamit biram tamit foofu tamit dafa am lu ñu war a wax ñi wax. dañoo ñemee wax ndax ñi war a wax dañoo daw penc mi. Euh, waaw dafa am ñoo xam ne boo leen euh, wooyul du ñu mun a ñëw rek di ko jël di wax dama yaakaar ne tamit gëstukat yi yow vraiment macha allah dama lay suivre. te lii dama dama dama ci bëgg. Hmm. dama ci bëgg lool parce que da ngay oo nit ñi. Euh, xam nga li gën a garaaw euh, mu am lu doxul nga naan dox na muy ci kër muy ci bureau muy ci réew. <laughs> kooku day gën a yées rek. parce que loolu lu ñu ko mën a wax wax lu nekkul dëgg la. te ñu ne jullit mun na def lu bari waaye jullit <laughs> du wax lu dul dëgg. loolu xeetu xeetu naa fekk la rek. ah oh, te du lu baax du lu baax gis nga léegi même booy euh, buggee sàmm sa kàddu am ñu jóg naan la bul ko sàmm ña la waroon jàppal ñooy nekk sa premier opposant waa léegi Birame tey ñun wàllum cosaan ak aada wàllum dundu dundin wàllum euh, nekkin ñun yooyu yëpp dañ see sàggan waa loolu nu ñu koy saafaraa euh, jóg rek xam nga gis nga lu nekk man euh, léegi dama damay toog di xelaat di gëstu ma naan au lieu ma naan yow la dama naan d'abord man la hmm. ku ci nekk xool sa sa devoir say obligation nga def ko balaa ma naan Tunkara la wala Ndoye Bane ma ne man la d'abord Birame Ndek Ndiaye ma xoolaat sama bopp. mais nag conscience boobu tamit Birame du ñëpp koy am nag. du ñëpp koy am waaye dañ leen ci war a ñaax parce que dañ leen di war di interpeller loolu moo am solo léegi di wax loo ñi nga xam ne xam nañ am na ñu bëri xam nañ de ñu ngi wallaay ci dëkk bi ñu bàyyi di nga xam ne comme li ñuy wax naan an empty can make the most noise. les tonneaux vides font le plus de bruit. foo ko fekk ñi bëgg a wóoreel ma wax loo leen ma kii ñu ci bëri waruñoo na wax. da ngay toog ay temps damay gis ay kilifa yu nga xam ne ñu ngi ci politique toog naan oui kii ñoo ko jox mu lekk ñoo ko jox mu naan waratu la wax mel ni li ngay wax yooyu danga ko doon na ci sa baay mel ni yaa ko moom dangay ngay <laughs> fàtte ne ñëpp la xoolal ñi waroon a xam léegi hmm. sax xamatuñu te loolu mooy gis nga malheureux réew foofu lay commencé hmm. ñàkk ràññee parce que d'abord loo gis doo tëb rek nga song ci da nga koy analyser gëstu ko gëstu say kàdd gëstu fi ngay teg sa tànk am na ñu xam gis nga bu ñu jëlee gis nga suñ diina ak suñ caada moo tax hmm. même li ñuy wax ceddo hmm. ceddo sax boo ko xoolee <laughs> boo xoolee maamu ñëpp ceddo lañu woon parce que xëy ñu rek ñun ay tuubeen lañ mu nga xëy ñu rek nekk nekk ñu hmm. ko ci xool sa ñetti maam ñeenti maam loolu la woon te bu njëkk ñoom dañ doon sàmm seen kàddu bu ñu la tey lu ma waxee ah. lii jaral na leen de lu wér su ma ne damay dem tey fii dama koy def duñ jël am na buur boo xam ne dañ naan su waxoon tey balaa waxati muy muy déwén da doon génn rek laaj leen est ce que yéen a ngi lekk bu baax yéen a ngi naan bu baax am ngeen jàmm ñu ne waaw mu dellu loolu nag li koy waral mooy seen émission yi muy bëri hmm. parce que euh, médias yi dañoo am ci rôle bu baax ñoom rek la euh, déglu mais mais Birame yow xam nga industrie culturelle euh, buñ bu ñu siy wax par exemple Sénégal amul industrie culturelle Euh, pour man am na balbutiement lu tax ma naan. xam am na balbutiement mooy loo xam ni mi ngi door. waaw mu ngi commencé di foisonné. mais euh, lii am solo mooy lu tax euh, ma ne xaw na ci am peut-être que doole ji la amagul. parce que boo xoolee doole boobu bu amul tey. acteur culturels yi du ñu gis seen bopp si ñoom seen activité ba loolu dafay tax ba affaire bi day ñàkk xorom te ñàkk xoromu culture. dafay dem ba ñàkk xoromu conscience ñàkk xoromu xel. voilà xam nga lu tax sax ma ne am na tuuti. parce que imaginel ku nga xam ne da nga war a génnee sa production boo koy génnee di nga ut ay nit ñu la accompagner ngeen répété fu ngeen di dem ci studio studio boobu ci comme la bokk bu ñu paree dañ koy def duplication maanaam di ko xel li ci lu mu bëree bëri loolu yëpp aussi c'est une production en série moom la industrie di laaj suñu paree di nga liggéeyloo ñu bëri hmm. comme booy def clip caméraman mun na am cinquante mille cent mille francs par par jour di nga gis ku mel ni euh, euh, réalisateur bi ak lam ciy am. boo paree distributeur bi waaye fi mu nekk nii li ko yàq tamit mooy piratage bi boo gisee cinéma. cinéma li muy koom bu rëy la demal ju mel ni ay États-Unis seen industrie culturelle moo jiitu daanaka. waaw alors yu mel noonu nag. lu mel noonu dañ koy mayal doole mooy li nga xam ne ci xel lay jógee. waaw ah, mais loolu nag dañ ko dooleel Sénégal parce que. Euh, pour wax euh, cinéma rek xam nga saalu cinéma daanaka léegi ñeenti saalu cinéma ñoo am ci réew mi yëpp. amatul loolu loolu loolu njaaxum la. dëgg euh, ba pare amul benn parce que bu ñuy wax industrie tamit mooy loo xam ni dafa organiser ba ñu gis ñu mën a xam pôle yi fan la nekk doole yi fan tey Sénégal benn label la fi am. waaw xam nga loolu tamit njaaxum la. non temps yi am na loolu dëgg la bu wër pëng analyse bi nga am. am na benn kii mais loo gis rek comme ci industrie dañoo demoon ba ay temps ay ay ay yeneen yëpp xaw a mel ni ne selew mais dëkk nag yaay am politique de relance. mais waa loolu voilà pour dugg si loolu tey est-ce que tey man ministre de la culture man mës naa ko bind ne ko monsieur le ministre ñun fu mu toll nii si wàllu culture. dañu nekk à l'agonie suñu culture amoon na jamono yooyu nga xam ni Sénégal ñëpp fi doon ñëpp fi bëggoon ñëw ñoom Maurice Béjart ak ñoom Roger Garaudy ñoom maam koo xalaat rek daf daf fi doon ñëw mais tey gis nga ni ñu delloo ginnaaw man ko waa léegi monsieur le ministre lan mooy yow politique de relance culturelle bi ñuy proposé ngir suñu culture suqaliku mais ba dem ba tey ba sànq gis nga loolu nag mooy vision man dinaa nekk à l'aise ci wax ci boo gisee yàgg na waxuma ndax ci mbir yi ma nekkoon la loo xam ne dama doon am fu ma doon jàppale état bi euh, waaye boo ko seetloo ci ñaari tour yi man maa doon défendre programme culturel bi ci ci ci ci RTS bu bu bii nii bu coalition bi yëpp daal bi jàppaloon euh, Macky Sall pour mu dem te li ma waxoon foofu mooy dafa am solo culture dafa am ñaar il faut nga am formation ay écoles yu baax bu bokk ak pratique bi nit ñi di am il faut nga am environnement juridique parce que ay investissement nit balaa nga koo def ah bu njëkk euh, boo jëloon piraté nit ay cinquante mille francs lañ la doon kii ak yooyu léegi nag avec nouvelle loi de 2008 dem na boo ay un million ak euh, euh, deux ans d'emprisonnement waaw mm-hmm. des peines civiles ak pénales léegi di nga war a am aussi système investissement pour loolu danga war a am incitation c'est comme en matière création bu indi ay liggéey indi koom état da nga naan nit ñi na ngeen créer liggéey li koy indi indil mooy entreprise privée. mooy nit ñi mais tam biram ñun xam nga principe yooyu yëpp dañ si d'accord mais tey ñun dañu gisul. benn jeego bu ñu teg. ah depuis 2012 pour culture bi ñu suqali ko mu taxaw man gisuma ko. loolu lay wax man dey ci sama bopp man li ma mun a def mooy ay proposition xam nga ku ci nekk ni ngay doxalee. yow gis nga tey ay jéego yu ñu teg déjà pour affaire bi taxaw. ah pour man des na nag. dëgg neex yàlla ah, dëgg moo ñu indi fii parce que ah, ragal yàlla moo ma gën a ragal nit. gis nga li ñuy war a def amoon na boo ko xolee am na benn parc industriel ci Sénégal yoo xam ne c'est vrai mu ngi ñëwee ci régime bële te loolu aussi war nañ koy def ku ku fi ku fi nekk rek bul wax naan dara amul foon déedéet. ci régime socialiste liggéey nañu fi. waaw indi fi ay euh, HLM 1 ba si 6 SICAP gendarmerie ak loolu yëpp. Ah, Sénégal nekkul woon désert. ñi nga xam ne ñoo fi nekk nii tey tamit mun a mun a mun a yore dëkk bi judduwuñ en 2000. amuñ 14 ans loolu yëpp ci lañ leen formé. donc après kii ñëw am lu mu def ay place du souvenir ay ay monument de la renaissance ak euh, le le grand théâtre ñii tamit ñëw war a yokkaat maa ngi ñaanal président Macky. ñii lu ñu defagum. frère la ci man maa ngi koy ñaanal mu teg ay jéego. lu ma mun a wax ne gis naa daal ci ci début bi ak njëlbeen yi parce que nag changé nañ ay ministre de la culture yu bëri. Mhm. te loolu tamit euh, dina indi problème. parce que ku commencé. seen amagum de ñett. waaw euh, Youssou Ndour ak euh, Aziz mbay ak fu mu toll nii Mbagnick. Mbagnick Ndiaye ci ñaata at. ci ñetti at boo ko xoolee moyenne bi. alors ah, que njaaxum la. <laughs> alors loolu war nañuy xool parce que le problème mooy culture li may yaakaar dafa am théorie ak pratique. du rek ay fonctionnaire yu toog seen bureau di xalaatal ñeneen ñi xamuñ lan mooy studio bi booy jënd seddee <laughs> lan lay jar. Euh, xamuñu naka la ñuy defaree film et tout ça. non am nañu ay seen xalaat ak seen ñu ci baax a nga fa nag waaye dañoo war di méngoo toujours. ak acteur culturel ñetti at yi. lan nga mën a wax ne yow moom nga gis ñu teg ko nga teg ci sa bët ñu def ko ci wàllum culture. lu fees sama bët. waaw ah, des na man de li ma bëgg a wax. dëgg na lan nga gisagum laa wax. oh maa ngi xalaat xam nga loolu de déjà sa pose problème. kay mooy gisoo dara. Euh, gis naa ne daal am na ay événement yu nga xam ne ñu ngi fiy am ñoom ñu ngi ñëw ci kii mais su ma sañoon. comme lan su eh, ah, événement yu nga xam ne comme ñu naan. Eh, eh, pour la diversité culturelle dem ci àll bi. loolu doyul non man kañ d'accord nag yow. c'est pour le déplorer que je le cite. attention c'est pas pour dire que je suis pour <laughs> ànd nañ ci parce que euh, Tunkara li tax ma ñëw. fii ministre de la culture tam dafa war a yëngu parce que xam nga tamit. Birame dañuy waxante dëgg rek yow bu ñu mënuñu la def ministre. pour rek yow nga am ay salaire am ay oto. am ay privilèges après ñëw takki cravate di def ay discours. dañ lay def ministre pour yow. nga ñëw teg ay politique yoo xam ni. ay réalisation indi ay réformes yoo xam ne ñëpp dañ siy teg seen bët ñu ngi ne nii gongo yow nga ñëw ëllëg bu way sa way maanaam day féete kaw mais nga ñëw toog ministre man sunu ministre yi moo tax nag ma wax ne xoolal am na benn exemple xam nga acteurs culturels yi déjà protégé leen parce que dañ ne le président de la république est le protecteur des arts et des lettres am na ñu ci yokk sax et des artistes ma ne peut-être aussi et des gens de lettres. amoon na benn convention bu nga xam ne depuis 2010 c'était pour la protection sociale. Hmm. bu ñu feebaree état la ci teg 50 ba léegi ca beneen régime boobu léegi gisaguñu dara. te loolu si am solo amoon na léegi gis nga ñu bëree ngi gaañu. pourquoi artistes yi gis nga bu ñu feebaree rek mais mais man man yooyu moom day eh, eh, metti sama xol moom moom. est-ce que xam nga ne am nañ convention boo xam ne 6000 francs la nit ñi war a cotiser par at euh, mooy junne ak ñaar téeméer loolu boo ko xoolee boo ko xaajee par ñetti fukk weer ak juróom. dafa mel ni téeméer téeméer la mooy li gars yi naan attaaya di ko toxee cigarette yooyu bu nit gaañoo fekkoon cotisé na loolu ñu jox ko ñu jox famille am million parce que ay temps yaa ngi recevoir ay nit ñi xale yi war nañoo jàngi war nga fay sa loyer mais bu léegi ñu ngi. artistes boobu ba léegi ñoom loolu souscrire nañu. amaguñ ko nag ñu ngi yaa couverture maladie universelle ñu ngi koy ñu ngi koy jéem a motali loolu quand lu baax la. waaye des na. xam nga xam nga xam nga tamit. Euh, biram dafa am leen lu am. ñun suñu réew mi il faut ñu évoluer jóge si wax dem si jëf xam nga président mooy protecteur des arts et des lettres xam nga loolu wax bu rafet la bu ñu bind nangam sangam ak yooyu def ko ci constitution ak yooyu nangam mm-hmm. sangam mais président tey ñun gis ñu ko mu bay waar si aar ak lettres yooyu boo xam ne fees na suñu bët ci loolu nag lañ koy lañ koy ñaan. yow président nag te sa wóolare la tamit da ngay wax ak moom mbiram ñun mënuñu jot. ci moom waaye man mi doo xam yow jot ci moom mënu ko gis. peut-être que sunu émission bi mun na tax. yëf yi kii parce que li am solo loolu laa lay wax képp ku jege buur di ko jéenal mu réussir li nga koy war a wax mooy dëgg nga rafetal ko nag ci anam yu mun a mel waaye wax ko dëgg soo ko buggee. Mhm. parce que euh, loolu lay wax am na ci ay mbir yu ñu nekkoon. Mm. mais lu may wax mooy man fu ñuy nekk rek nañ ko jéem a réussiral pour que ëllëg moom. mu mun cee am ndam président bu nekk que nag man li ma ñaan yàlla mooy président bu nekk Sénégal na nga réussir parce que ah, loolu moo baax ci Sénégal ah. <laughs> waaye nag aussi am na ñu nga xam ne am nañ ay solution waaw nañ leen jéem a déglu parce que ku mel ni Birame Ndek Ndiaye tey ñu naan dañuy def euh, culture si suñu réew ñu mel nii euh, moom kenn euh, boolewu leen si kenn faalewu leen mais loolu dafa mel ni xam nga Birame nu mu mel hmm. gis nga ñun Sénégal hmm. ñun dafa mel ni ñun li ñu am lañu bëggul da ngay gis sénégalais boo xam ne ku mel ni ay ñoom général Mamadou Mansour Seck moom Agawa bii ñuy wax. Mhm. moom moo ko doon négocier temps yi mu nekkee ambassadeur Washington. mais tey bu affaire Agawa kenn faale wu ko ñiy gérer tey xamuñu sax général. waaw ah, loolu Seydina Omar Sy moom moo doon négocier ak waa Union européenne depuis temps CE. mi ngi fi mhm. mais tey ñiy négocier ak Union européenne. Mhm. xamuñu sax Seydina Omar Sy maanaam suñu mémoire. ak suñuy valeur ak suñu nit ñi am maanaa. ñun leen faale. saa yoo xam ne ñu ngi lijjanti mais loolu biram loolu loolu nag baaxu ci réew parce que di la faale surtout bu fekkee da ngay wax lu nga xam ne gëmloo ko wala di di di di ëpp sa bët ci lu nga xam ne waroon nga ko ci ubbi ah, loolu du yoon loolu moom xam nga yàlla dëgg la bëgg de Dieu est vérité wax dëgg moo fi nekk parce que ëllëg gis nga yee surtout jamono ñi ñu toll yëpp ñu ngi koy filmer parce que mandat lan la hmm. ku fi mun di toog tey démb ak ëllëg cinq la bu bëree ba bëri dix ans hmm. a une vie après ça li am solo mooy nga poser ay actes yoo xam ne boo demee danañ xam ne lii defoon nga ko te nga nangoo nag uuf njaboot bi yëpp bu la kenn noonu loo kenn amul fii noon ku nekk da ñaan yàlla senegal ca kanam loolu moo am solo waaye nag euh, su fekkee ne ku wax dëgg wala ku bugg a jubal léegi même da nga koy xool da ngay liggéey ay fend boo buggee jubal rek syndicat yi euh, booloo commencé di la song nag biram li nga wax nii euh, dama foog ne ñun bu ñu ubbee tuuti suñu bët rek sunu borom daf ñu ko wan lu leer nañ euh, président Wade ak waa këram nekk nañ fi fukki at ak ñaar di buum di buum yi di teg di teg yi di maanaam dongaas yi di nekk seen lu leen neex mhm. mais tey mhm. waa këram yi gis nga tey fi ñu toll xat Euh, ñu naan Farba Senghor génne nañ ko këram ndax fay luwaas xaw ma dëgg la wala dëgg mais wax ji rek ñu wax ko. Mhm. day wane ni que nguur boo si nee war nga def nang parce que comme li nga wax léegi biram y a une vie après ñu naan Ousmane Ngom mënul génn réew mi Ousmane Ngom nee na moytu leen xaalis euh, ñun sénégalais dafa mel ni message yooyu. Mhm. Euh, nguuru Ablaye Wade. Mhm. xat-xat yi ñu nekk tey ñun mel ni message bi message dégguñu ko. xam nga luy waral ñu bëri dañuy jaay seen ëllëg ndax tey. li ñu bëri ci nit ah, du fii ci biir réew mi dama xool ne léegi la nekkoon valeur léegi la nekkoon avantage lañu def inconvénient loo baaxoon ñu bonal ko booy teel a liggéey su ñu ne kii dafa gëm liggéey. dafa xobe dafa xobe booy def rigueur ñu naan kii dafa war a nooyal tuuti boo seeree pour yàq bañ a am ñu ne nu ruusal lépp lu nga xam ne daf doon bugg a baax ni dañ koy jël bugg ko bon bonloo waaye am na ñoo xam ne fa mu doon taamu fay taabo léegi. est que li am solo mooy na ñu nekk ñaar ñett gëm benn dara. Euh, yow par exemple da nga bind ci musique euh, nga xam bu baax euh, musique Sénégal bon euh, man musique dafa am lenn lu ma ci leer mooy ñun Sénégal dañoo dellu ginnaaw ci musique dellu ginnaaw bi mooy saa su ne dama koy wax fii Touré Kunda ñoom xam nga ñoo fi am ñetti disque d'or ci année quatre-vingt yi waa xalam de ñoom ay festivalu Woodstock ah, devant ay cent 500000 personnes. 94. ñoom dañ fa demoon di di di jouer. Euh, tey boo xoolee concentration musicien bi am Sénégal. amul si benn réew Afrique. parce que ñun da ngay tudd ay tur yu mag. Youssou Ndour Ismaël Lo Baaba Maal. Euh, nga wax euh, super jamono. maanaam ay Doudou Ndiaye Rose mi génn àdduna ñun li li Sénégal am si wàll kenn am mais tey. Mm-hmm. sunu musiciens yi. Mm-hmm. dañuy am musiciens yoo xam ne xamuñu musique musicien day ñëw fii toog ma ne ko ah yow notu musique yi lan la. mu toog di ma ko ne ma xaw ma notu musique am kii dama jur xaw ma yaa ngi dégg. Euh, ñu toll foo xam ni tey benn label moom moo am si si si si réew mi mais mais Birame sunu musique nan la mën a daanoo nii. Euh, ay dafa am ay facteurs yu bëri bu ñu ko munee buggee gëstu déjà ñu ci bëri danañ la wax ne piratage bi parce que dafa am ñoo xam ne dañuy xaar. man sax musique li ma ci gën a intéressé surtout moo nekkoon texte yi daal euh, yàlla def na du ma musicien waaye euh, bind parce que message lay véhiculer d'abord li li li waral loolu dangay gis ñu nga xam ne dañuy sonn ci culture yëpp même ñi nekk ci théâtre bi defar seen affaire oo ay nit fay leen dem studio fay benn waaye taxaw fële de benn benn saay-saay benn woyu ba nga pare lépp mu jël ci benn exemplaire rek dem dupliquer ko di ko jaay doo ca am dara producteur bi nga xam ne moom mooy may jël xaalisam dugal ko pour fixation œuvre bi mun a am parce que loolu mooy rôle am du gis dara. investissement am du ci def fépp la am de si moo tax état bi nag war ci xeex xam nga fi nekk nii. piratage mais police contre loolu. waa am na ko nee nañ benn brigade mais des na parce que boo demee ci mbedd yi ba léegi da ngay gis loolu. waaw brigade boobu de boo fa demee moom da gis ñaar ñette kii agent taxaw foofu rek ay deux éléments. <laughs> ñu ne <laughs> loolu xam nga li ñuy wax naan toujours dafa am benn volonté volonté politique danga koy affirmer ba noppi dal di ko jëfee. Hmm. su fekkoon dinañ leen doon jàpp di def ay peine exemplaire. Hmm. parce que justice rôle am rek. du pour certainement sanctionner war nga mën a dissuader aussi ah, ak réparer bu amee benn tool ak yar bu baax a baax donc mais loolu tax na bon léegi jafe na trop trop trop trop trop trop. pour euh, nit daal di ñëw produire parce que producteur dafay investir pour am xaalis. Euh, loolu la loolu moom lu am la te musicien yëpp euh, dañ ko jooy mais tamit musique xam nga léegi àdduna dafa évoluer tey. musique mun nga ko jaarale si internet musique danga nga koy jaarale ci ay YouTube musique da nga koy ak yooyu. Mhm. te suñu musiciens yi tamit foofu moom ràññikuñ fa loolu moom war nañ si gën a yëngu. ak aussi nga baal ma nga baal ma dama ci bëgg a yokk rek juste ne aussi performance bi. am na ñu bëri léegi ñu ngi dem parce que suñu buggee tàggat mooy di dem di jouer loolu tamit ci am solo la si am na rentrée de devise parce que am na musiciens yu ah bëri bu ñu ñëw dañuy indil koom-koom Sénégal. mais mais dama leen ko wax saa su ne dama leen musique moom musicien moom bu buñu sax jéem a sonn euh, production ak prestation. ñaar yooyu su amul moom. Mhm. vraiment euh, njalaxaan nga. te prestation yi tamit. dafay nekk foo xam ni ngay dem si ay bërëb. ñu ne am grand théâtre ñu ne la tey euh, Birame Ndek Ndiaye mi ngi grand théâtre mais mm-hmm. musicien moom ñeme woo loué benn salle pour def sa prestation ah, ah. tam dafa doy waar parce que musique d'écoute tamit dafa war a am sénégalais yi dañuy déglu de mais il faut que ñu leen di proposer loo xam ne nit mënoon na ñëw tey def benn récital lu fees dell comme ni ñuy écouter dégloo Jacques Brel wala keneen ci la parce que pour loolu nag da war a préparer say kaddu loolu ñu ne tey nuit de la cora ngeen ñëw loué grand théâtre ñëw toog nit ñi ñëw toog déglu vraie musique ngeen xalam affaire yi. promoteur boo leen toogee noonu rek di di jàmbat loolu tam du mën a dem. maanaam uti beneen métier ci ci côté man assureur la de formation. lii dama ci juux rek. jërëjëf aywa macha allah Modou Ndoye aywa yow euh, si li ngay yëngu. Euh, fu mu toll nag yow dafa mel ni dafa am évolution parce que bi nga nekkee wal fajri la nga doon def dem sur le terrain dem si euh, sëkk yi dem si armeel yi dem si morgue yi dem si jigéen yi jaay seen bopp guddi loolu dafa mel ni da nga ko dakkal déedéet dakkalu ma ko sa soo soo dee suivre suivre wareef yooyu noonu ba léegi dama koy def xam nga bi ma nekkee wal fajri dama ko doon def en audio mais suma ma bi ma ñëkkee TFM dama koy def ci émission wareef. ñu koy wane ci télé ñu koy wane ci pré toujours que toujours que maa ngi koy maa ngi continuer di ko def tous les samedis et dimanches à la rajo. waaw rajo bi yaa ngi si wari. Euh, wareef euh, vraiment tata dégg mm-hmm. moom ñu ngi koy euh, ñu ngi koy delloo njukkal bo moo Ndoye yow tey lan nga bëgg leeral. waaw comme ñi bu baax a baax sunu sunu sunu sunu grand bi. comme li nga wax ay borom xam-xam yu mel ni kii nii. Euh, grand bureau mi wax dëgg yàlla war nañ leen a gën a am ful leen teg. ah boole leen si dara nag. war nañ ko mën a boole parce que wax dëgg yàlla fi mu nii bëgguma woon sax mu noppi ndaxte maa ngi ciy ah. jàngalu bare bare bare et ñun bi ñuy commencé rajo dañ ko daan gis xamuñu woon nag mais dañ ko daan gis muy dugg génn ñi ñëw rajo ya nekkoon mu fay ñëw. xaw ma xaw ma lu mu daan lijjanti mais daan nañ wax kii mooy lii moo bind lii moo bind lii gis nga li mu wax noonu ci Aline Baye Nder boobu fàttalikul doom boobu moom mu wax noonu nit ñi ne nga gis nga texte bi ni mu riche. waaw mais sénégalais yi bëgguñu loolu. Hmm. sénégalais yi bëgguñu nit ko baax. maa lax lii bëgguñu kuy wax lu baax bëgguñu kuy def lu baax soo dee liggéey liggéey bu baax sax ñu ngi lay jéem a fa xasal. sénégalais xanaa baaxuñ. ah loolu ku bañ loolu yëpp de moom baax. non non je peux comprendre nit ku mel nii da ngay damay demal ci internet bi nga jël sëriñ bi gën a yiw ci réew mi mu waxtaan ak sénégalais yi. nga publier ko ci internet bi. kenn du ko faale. nga jël ñu ni am na benn animatrice bu ñu jàpp muy def affaire lesbienne. ñu publier ko nga jël ñaari article yooyu. article animatrice bay def yu fa lesbienne moom la Sénégalais yi di gën a xool que sëriñ bi li lu baax li muy wax. léegi loolu loolu à ah, qui la ah li nga wax doy xoolal pour ma bàyyi la dëggal la may la nga yeggali. Mhm. démb ndongo sow dafa toog fii. Mhm. ne moom dafay jàngal nit ñi alxuraan. ci làkk yu dul araab parce que ñun comme dégguñu arab moom yàlla da koo may. Mm-hmm. alxuraan mu dégg ko ci ay français ak mm-hmm. ay wolof. Mm-hmm. léegi mu ubbi benn centre Thiès foofu këri kaw. waaye nee na picc gisu ko. kenn du ñëw <laughs> te gis nga tey jii loolu suñ ko publier ci internet bi mu wax ko ay nit yu bon ñooy nekk ci ginnaaw di la saaga. naan kii day ut xaalis di la wax waxi bon. ayibal la wala donc Sénégal dire la vérité déli la fii wax fi dëgg déli la. waaye looloo tax nga dem dugg si politique ne pire foog nga defar ko. waaw pire moom xam nga dama fa def benn mouvement du wax mouvement wallu waa piir képp koo xam ne da xam pire sa maam jànge fa wala nga dëkk fa pour nga ñëw xeete la ñu ngir yàlla ak yonent bi dañuy ñaan dimbal xam nga lu tax. Hmm. man man fa laa dëkk sama papa fa la dëkk sama yaay fala dëkk falaa laa màggee fa la fa defee lépp. dama yàgg gis benn benn xaw ma nooteel la xaw ma manque de reconnaissance la Pire mosu am ministre bu dëkk Pire mosuñu am député bu dëkk Pire. ambassadeur nag am ngeen ko. ambassadeur lañ amoon lépp lu fa baax nag ambassadeur boobu la sëñ Moustapha Cissé moomu te fi mu mag la. waaw ah, dëgg la donc autorité politique ya nekk ci dëkk ba nga xam ne su ñëwee biir dëkk ba. campagne fa politique fa bañ jox leen dëkk ba ngir yàlla suñu leen joxee dëkk ba ñoom ñoo yor kàddu waa dëkk ba waaye léegi moo ndooy bànn yow tey mënuloo def benn euh, woowaa Pire yi waaw dañu war a am projet pour defar Pire du nag ay yëfu politique. projet boobu doomu Pire bu nekk dañoo bëgg nga indi sa xalaat indi sa xaalis def si. yow loolu mënoo ko organiser. tey jii soo ko doon def comme ni ma la wax soo ko doon def ay nit nekk ci ginnaaw naan leen lànk leen. baax na non loolu kaay ma wax la nag moo dooy baan yow mënoo bañ. am ay noon ak lu lay faxastal si àdduna àdduna moom noonu la tëddee. boo nee man na noon yëpp dee may soow a dem doo mës a dem. Mhm. léegi yow tey boo dooroon loolu amaana. kenn dina ñëw indi ñaar dërëm kenn indi million. Mhm. yow nga dugal si sa cinq cent mille. Mhm. kenn indi benn xalaat keneen indi beneen xalaat ngeen dooree lu tuuti. mais mhm. parce que pire nu mu mel jaaduwut. man man moom à ce qui me soo gisee ma teg mouvement wallu bi lépp lu ma mën maa ngi koy def. waa léegi yéen mouvement wallu lan ngeen defagum si pire yéen. mouvement wallu moo yóbbu ambulance pire. moo fa yóbbu ambulance mouvement wala fan yii rek du yàgg dara dinga nga gis euh, ni maa ngi dinaa dugal sama loxo bu baax a baax ci ci ci daara yi mouvement wàllu mi ngi préparé tey ji liste lii liste handicapé yi handicapé yi yi nekk pire la moom laa y a 23 handicapés yoo xam ni war nañ leen a jox ay ay ay ay bagages yu ñuy doxe ay ay beeke ay fauteuil ay fauteuil léegi moom wàllu mi ngi ci mi ngi ci mu ngi ci jeunes yi mi ngi ci nawetaani di jàppale jeunes yi mouvement wàllu mu ngi mi bërki démb rek la dem dem dem di sible benn daayira day dem ci benn daayira gis ni ñii xale pire amul boîte de nuit hmm. quartier boo dem ay daayira la dañuy ñëw fekk fa ay groupe jeunes yoo xam ne ci lii la ñuy yëngu nga jënd leen sono jox leen jëndagum nañu ñaari sono jox daayira yi yow sa sa sa 23 handicapés yooyu waaw man mun naa leen may waaw 23 fauteuil roulant loolu loolu loolu moom loolu loolu yomb na yàlla bon mais mais man dama am problème si yi même mhm. parce que lii yëpp social la mhm. man développement laay wax. voilà yéen lan ngeen defagum pour développement. Non, parce non. que ambulance daara yi. waaw handicapé yooyu yëpp. parce que mënuñu def dara parce que amuñu amuñu amuñu doole boobu. waaw mais loolu laa wax nag il faut mu commencer fenn nag. voilà moo waral moo waral suñu ñëw fii dañu bëgg tey jii pire am na benn association bu fa am bu ñuy wax association booloo liggéey. ay pire ay cadre rek la. kii ko jiite mooy Abdou professeur Abdou Ba bi nekk cardio professeur Ndaraw Ndoye bi nekk Fann mm-hmm. euh, ak bari na ay cadre yu nekk piir ñooñu am na association boo xam ne ñoom ñi ngi yëngu bu baax a baax a baax ci ci ci ci ci développement boobu bañ ko defee yàgg waaw yow tam nag bul yem si social rek non xam nga parce que social du développé dara de wax xam nañ loolu c'est que problème mooy dañuy dem ci fi ñu fi suñu doole fi mu yem mais c'est non lii yéen yaa ngeen di dimbali nit ñi uh-huh. mais euh, li chinois yi di wax rek mm-hmm. dimbali nit mm-hmm. jàngal ko mu mën a napp ni muy nappee moo gën nga may ko ab jën mm-hmm. léegi nag yéen euh, Ndoye Bane il faut mm-hmm. ngeen dem xam nga ñun tey mm-hmm. suñu état yi waxtaan wax dëgg ci la suñu état yi mënuñu lépp amuñu doole boobu il faut tey mouvement yi. il faut association il faut communauté de base yi. ñu commencé jël seen destin en mais bàyyi toog di xaar. bàyyi toog di tàllal euh, loxo. ak bàyyi toog di jàmbat ak bàyyi toog di joxoñ état bi ak joxoñ ma Samba joxoñ ma Demba ñun kenn ku nekk. mouvement wàllu piir nañu wàllu piir si ni que. Pire dafa war am université par exemple. léegi université boobu. mboolee mu doomu Pire yëpp kaay leen. ñun ñoo koy tabax. Euh, première pierre yi gars yi teg nañ teg suñu première pierre. Mhm. ubbi nañ suñu compte bancaire ku am sa dërëm na nga si ñëw dugal. Mhm. kan mooy architecte boo xam ni Pire la juddoo. Mhm. mën ñu ko dessiner gratuitement loolu nekk participation am. ana yan maçon ñoom ñoo pare pour loolu ñu tabax ko gratuitement. ak et cetera mais loolu ñàkkul. gis nga idée boobu nga ñu nga ñu jox noonu bu idée bu am solo la te incha allah dinañ ko dinañ ko teg am nañ ay kilifa am nañ ay papa ak ay ndijaay yoo xam ne ay cadre lañ ci réew mi architecte li métier moo xalaat am na fa am am na fa. mais doo loolu noonu pour mu am il faut ñu booloo. booloo man xam nga lan moo ma intéressé man pire lan moo ma intéressé man so gagné mairie baak ñàkk ko gagné laa mën na dëkk ba dox ba nga xam ni su sama doom yi màggee mën na am. école waaw léegi loolu dañ koy doxal nag. voilà dëkk bi na dox du dox de. dëkk bi ñu ngi koy doxal moo koy doxal. da dangay da xam nga lan mooy sunu problème ñu nee naa la sànq sunu autorité yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñoom ñoo nekk pire sunu génnee pire. du ñu wax waxu pire. waaw léegi loolu laa lay bañal nag man man loolu ànduma si xam nga lu tax. Mhm. bu boobaa yaa ngi joxoñ sal baaraam autorité yi di wax seen responsabilité yow Mamadou Ndoye baan sa mhm. responsabilité laay wax yow. Mhm. en tant que organisateur pour. compter si benn lay commencé. nañu commencé teg benn benn benn xeer. ñaar ñële defuñu li ñu war a def. marax ba ñun ñu ngi def lu ñu war a def. Ndoye Bane il faut ñun tey Sénégal. ñu yegg. ñu bàyyi niveau wu wax. Mhm. ak niveau wu jàmbat. ak niveau wu joxoñ keneen. Mhm. ñun ñu jëf li ñu mën a jëf. Mhm. loolu mun ngeen ko. loolu loolu léegi léegi moo doy baat beneen. yow tey euh, piir ñun ñëpp gis nañ nu mu mel. te du piir rek. dëkk Sénégal maanaam boo génnee Ndakaaru yëpp dangay gis ni euh, noonu la mel léegi tey. yow lan nga xalaat ne que ñun euh, kenn ku nekk tey lan nga koy digal pour mu bay waar. loolu euh, dama ko yàgg a jàmbat gis nga euh, Sénégal gi suñu bëggee mu dox comme ni nga koy waxee pour Sénégal jëm ca kanam il faut ñu tëggaat réew mi tëggaat ko tëggaat xale yi parce que ñun ñi moom nekk nañ ay ngol mors kàllaf ba pare voilà tëggaat ko jël lam bi ni mu mel nii nga tëggaat ko ni nga koy tëggaate mooy da ngay commencer ci xale yi xale yu cinq ans yi ca daara ja ca jardin d'enfants la li ngay njëkk a dindi ci ñoom mooy jàngal leen lan xamal leen lan mooy corruption. Hmm, guerre lan mooy corruption lan la mën a wàññi cim réew. Hmm. xamal leen ko ñu màggaat xale bi am cinq jogaaleek moom xam xam daal li nga xam ne lan lool lim mën a yàq ci réew mi. Hmm. jàngal xale bi lan mooy civisme ak incivisme. comprends nga. def ci moom éducation bu am solo boo xam ne su génnee. même su fekkee nekkul parce que Sénégal soo nekkul bureaucrate rek duñ la respecté te mën nga mën nga jàng ba am ba ba ba am ay yeneen métiers yoo xam ne moom moo gën fuuf bi bureaucrate def ci moom ko euh, lan xamal ko lan mooy corruption civisme ak sécurité réew mi. Hmm. sécurité réew mi soo gisee moom la sécurité réew mi pour réew mi am sécurité gendarmerie police garde pénitentiaire ñi nekk ca ca ca ca ca forêt ba militaires yi il faut ñoom ñu mettre leen à l'aise ni leen mettre à l'aise je peux pas comprendre un douanier bu nekk fii jam jam ñaajoo jàpp deux milliards de drogue da ci am pour centage hmm. mais pourquoi su ko gendarme bi jàppee wala policier bi su ko jàppee du ci am dara parce que ñii dañu am fonds commun ñii amuñu fonds commun voilà léegi nag loolu noonu nag il faut ñu organiser organiser leen ko waaye mais moo moo Ndoye Bane da nga wax lu am solo si xale yi foofu ma bëggoon yéen waa wàllu piir mm-hmm. ngeen bay si waar mm-hmm. waar wi mooy tey mm-hmm. mun ngeen def yéen bu vacancier li ngeen di dajale seen astuut xale yi ngeen defal leen benn camp wu un mois boo xam ne xale yi piir yëpp. Mhm. foofu si si dëkk ba si peggu dëkk ba. Mhm. mu mel ni xeetu lël yooyu. Mhm. nga xam ni foofu dañ leen fay jàngal euh, li nga wax ni moytu corruption. Euh, jàngal leen fa lan mooy civisme. ak jàngal leen fa lan mooy importance su indi sa participation pour réew jëm kanam. yoonu dëwën mun ngeen def loolu. loolu effectivement gis nga yaa ngi ñuy jox ay ay comme ni ñu ko ñeneen ak ñeneen ñu joxe ñu koy noté pour que ci kanam. yooyu yëpp dinañ ko dina dinañ dinañ ko. parce que il faut xam nga man li may bañ. mooy mm-hmm, mm-hmm. ñu toog naan dañu war a def lii dañu war a jàngal nit ñi lii man loolu ànduma xam nga lan lañu war mm-hmm. kenn ku nekk nag. man maa ngi def lii. man par exemple man samay doom dama leen koy wax dama leen ne cigarette. sàngara. drogue. yii yéen moomu leen ko. keneen mu nox rek te loolu. dama leen si defal lavage de cerveau man nëbbu ma ko. te. bu fekkoon damay toore naan non euh, xale yi dañu war a bàyyi cigarette xale yi dañu ñu def drogue xale yi waruñu naan sàngara te man bayuma si waar mhm. mais bu boobaa man mun naa xëy suba sax yàlla nattuma samay doom di def loolu mhm. donc kenn ku nekk tey na bàyyi xel ne que mhm. dañu war a évoluer ñun Sénégal jóge si dañu war a def lii dañu war a def ah man maa ngi def lii nit ñi fekk nit ñi nit ñi nit ñi fekk la boo yow ban ban message nga bëgg mu leer wa message bi ma bëgg mu leer koy jëm si man li ma li ma naan pire pire ma ñor pire gu rëy dëkk bu ma bu ma ñor la parce que su ma demee ba màgget ba retraité damay dellu pire fii ay Ndakaaru boobaa di nga jeexal de waaye tam da ngeen bàyyi ba lu tax doo dellu pire léegi. non maa ngi dellu man chaque dix jours maa ngi. maa ngi maa ngi pire non yow da nga war a dem dëkk pire. <laughs> non ñibbi pire ubbi fa sa rajo. xool fa sa télé voilà gis nga affaire rajo boobu. am naa fréquence 94 point 3 Kayor FM. Hmm. mais aw ay moyens pour pour pour ubbi rajo bi maa ngi lay <laughs> maa ngi lay xaar nga may. may ma émetteur ak ñoom sax loolu mën nañ si bay waat voilà ci loolu noonu am naa émetteur ak yëpp. waaw yow tey loolu mënoo am ay ñoo xam ngeen di investir noonu ñu ñëw dugal seen kii ñaar dërëm ñetti ñu ngi ci am na ñu ma ciy waxtaanal mais tamit. suuf non mais dinaa ñibbi piir xam nga non dafa bokk xam nga te tey jii xam nga bëgg a ñibbi piir moo tax nga ubbi nga bëgg bëgg am fréquence rajo dafa bokk si si ray suñu dëkk yi lu mel ni piir waaw ñu mel ni Mamadou Ndoye Bane ñëpp daw daw ko ñëw fàqi Ndakaaru xam nga man tëdd fii man xam nga man ancien militaire laa woon waa moo tax nag nga war a dellu piir bi ma libéré mm. piir dama fa ubbi woon société gardiennage nekkoon fa di di yëngu ba mu yëfee daanoo mu ñëwaat fii Ndakaaru nekk ci société gardiennage yi di ñafe ba léegi yaa ngi si rajo waa léegi tamit. waaw Mamadou Ndoye Bane. tant yaa ngi Ndakaaru. waaw piir du baax. dellu piir rek. Pire mënumaa toog weer woo xam ne dewuma fa ñaar yoon parce que sama liggéey sama liggéey ci boppam moo ma moo moo ma permettre tout le temps may nekk. loolu laay wax léegi nag yow dangay ngay amal liggéey boo xam ne daf lay permettre tout parce que Pire. lu fa waay mën a def du fa jeex mm-hmm. Mm-hmm. waar waa nga fa ne jàmbalang moo nooy baan lii yëpp ay daw daw daw waar la de lu fa am na nag bay mais mbay si la lépp ne. mais mbay tey yow mun nga bay. mun nga sàmm. waaw mun nga am rajo foofu. mun nga am télé foofu. waaw loolu lépp fa mais non moo nooy baan. mais loolu loolu ça demande ça ça demande des état bi. compter si benn lay commencer il faut ñu nangu. léeg xam nga benn xam nga sànq maa ngi la koy wax. ñoo nga fa yaa ngi doon wax Pire dëkk bu bu bu yàgg la daaroo xaali Amar Fall nee nañ jumaay piir ji. Euh, daara ja ña ngi ko defar en 1603. Euh, jumaa ji ñu defar ko en 1611. ñun ñaa ngi naan est-ce que jumaa ji sax est-ce que nekkul jumaa ji nga xam ne moom moo mag ci jumaa yi jumaa yi Afrique Afrique de l'Ouest mais ci man bi ma defee quelques quelques quelques recherches gis naa ni juma euh, jumaa ji nekk Tombouctou ñu naan ko Sankoré. nga xam ni jigéen moo jigéen moo ko moo moo moo moo moo ko moo ko samp foofu noonu. xaw ma trois la ma xaw ma lu mu doon. bi ma defee ay gisu gis naa ni jumaa jooju moo mag moo mag jumaay piir gi mais loolu loolu Sénégal la nekk daare xaali Amar Fall pire ba nga pire histoire la université ba fa nekk loolu lépp état bi jéem ci def dara de bokk pire bokkul ci dëkk yi nga xam ne ville ville ville religieuse yi ñuy war yi ñuy moderniser pire bokku ci doo dégg président lim ville yooyu ville religieuse yi te du ci boole pire maanaam pire waaw loolu kaay ma jox la solution waaw non man moom musumaa jóge pire. non déggoo man musuma ma de. non man musu ñi pire. man Mamadou Ndoye Bane. su bàyyil daw bi <laughs> xoolal bàyyil daw bi déglu lu baax. man waa piir ñi ngi may seetaan. gis nga pire leen laa la bëgg su dëj ab xewee amee maa nga fa su ngénte amee maa nga fa. xam nga yooyu se occasionnel. bàyyi di dem ay dëj ak ay ngénte li ma wax mooy. waaw ñibbi piir gis nga. xoolal mënees naa la ko waatal. <laughs> tant yaa ngi fii Ndakaaru yow foo dëkk. donc man ndakaar laa juddoo. Ah. hôpital principal gii laa juddoo. man Dakar laa juddoo di. waaw yaa may dégg. Ah. tant yaa ngi fii Ndakaaru. Mm-hmm. pire du baax xam nga lu tax. Mm-hmm. yéen ñi dëkk si euh, ay piir ak yooyu si gox yi. Mm-hmm. ngeen am xam-xam. am mën-mën. am pexe am expérience. loolu yëpp ngeen ñëw tëdd Dakar. loolu yëpp day daw. dëkk ba. ñëw di suqali Dakar. man waa piir yi may seetaan. xam nañ ni man ñëwuma rek tëdd ndakaaru di leen seetaan waa léegi nag tëdd ndakaaru boobu laa wax ni yow da nga war am tëdd pir di fa yeewoo mhm. nga xam ni ndakaaru soo fi ñëwee léeg dangay ñëw xëy mhm. am loo lijjanti delluwaat pir ñëpp xam ne Mamadou Ndoye Bane mhm. dellu na piir xoolal ndakaaru moom moo jeex ndakaaru moom moo congestionné ba tant que yow delluwoo piir du baax de noonoo soo delloo piir nag te delloo fa loxo yi neen du baax tamit non yow amoo loxo yi neen xam nga lan am ah. xam expérience. Mhm. loolu ngay dem valoriser. loolu mooy loxum neen. Mhm. Mhm. eh dellul pire. <laughs> Eh, eh, benn leneen li bëgg bëgg a xam moom mooy mooy gouvernement bi na gëstu pire. on a des cadres. yu bari bari sëriñ Boub ma nga fa mooy mooy monsieur le maire. lu nekk def na ko ci politique nañu ko président Macky Sall defal dara sax pour que dëkk bu mën a soqali ko ah, nekkoon na dara Abdou Ba mi ngi fi. nekkul woon PCA waaw moom PCA waxuñu ay PCA. mais affaire bi du ay poste de. te da de c'est a ngi nii nekk fi ay ministre ak mel ni dëngawaam. naka su dul noonu. mais affaire bi du ay ministre ay yooyu Kaolack a ngi nii. Mhm. Ah, Casamance a ngi nii yooyu yëpp dafa am ay ministre ay mais affaire du loolu. Mhm. Tambacounda affaire bi nga lan la. Mhm. doomu dëkk bi. gëm dëkk bi. xam nga gëm nag lan fan la njëkk a feeñee gëm gëm xam nga gëm bi fan la njëkk a important li nga wax gëm dëkk xam nga fan la njëkk a feeñee uh-huh. nga dëkk si dëkk ba uh-huh. fa la njëkk a feeñee uh-huh. yow gëmoo piir <laughs> waa piir dañ lay ree dama ni <laughs> xoolal Mamadou Ndoye Bane gëmul piir <laughs> su gëmoon piir piir lay dëkk xoolal kaay ma wax la xoolal man euh, bi may euh. bi may jàng Amérique non waa piir dañ lay ree ma jox la exemple bi may jàng Amérique dama doon liggéey fenn sama mhm. patron woo ma. Mhm. ne ma ndax bëgg nga nationalité américaine xam nga américains yi ñoom. dañoo opportuniste bu ñu bu ñu gisee njariñ si yow rek dañu lay kii dañu lay jéem a euh, mhm. mu ne ma ndax bëgg nga nationalité américaine ma ne ko déedéet. mu ne ma ah bon. yéen africains yi fii yéen ñëpp da ngeen bëgg loolu. ma ne ko non man bëgguma ko mu ne ma lu tax. ma ne ko parce que man damay dellu sama réew. yéen seen réew defar ngeen ko ba mu baax. ñun suñu réew baaxagul. man su yàlla su ma mayee as tuut si maanaam mu mën a ràññale suñu réew laa bëgg mu jëriñoo ko pas seen réew mu ne ma ah bon ma ne ko ah mu ne ma loolu nag respecté naa la si Mamadou Ndoye Bane yow kon da ngaa ba nga xam nga da nga nekk Amérique ba ba ba ba dëgër ba ràññeetle ngay doog a ñibbisi non Amérique lan dama demoon jàngi man samay diplôme dama pare samay diplôme ne leen ñibbi naa man toog ma seen réew mais li ma bëgg wax mooy waaw gëm dëkk mhm. fi muy njëkk a feeñee mooy nga dëkk si dëkk ba man gëmuma nit Mm-hmm. ne ma gëm naa dëkk bi. te mm-hmm. dëkku fa man gëmuma loolu. Mm-hmm. man laa wax de. dëkk fa dëkk fa mooy. maanaam dëkk fa di fa yeewoo say activité nekk fa. sa kër nekk fa say soxna nekk fa say doom nekk fa. nga ngeew sa bopp nga nekk fa. loolu gëm tey jii tey jii tey jii tey jii munoo dem ci dëkk ba noonu rek. il faut soo jëmee soo nekkee Sénégal Dakar gii. Ah, am fi liggéey man de gis ma gis ko non non da nga maa bëgg ay problème yow dellul sa dëkk yow dellul sa dëkk ay lay <laughs> pour bañ dem dëkk non man musuma jógee ci dëkk ba waa dëkk ba ñu ngi nga fa kay non non non waa dëkk ba ñu may seetaan xanaa xamoo su tey ji soo jëloon sama téléphone nga xool man ñi may communiquer ci téléphone ñi may communiquer ñi may communiquer waa biir moo non xam nga lu tax ñu gagné la mairie ba waaw ah. parce que dëkkoo fa <laughs> non non gis nga boo fa dëkkoo ka ko gagné maa ko fa gën a dëkk non yéen ñaar ñëpp dëkku leen fa dalaa ëpp xaalis kon voilà peut waaw d'accord mais maa ko fa gën a dëkk de man fa laay tabaske fa laay korité fa laay défini occasion la fa fa laay défini occasion toog 15 jours yu ma demul pire mais kii moo bañ pire <laughs> yow dellul pire dong maanaam bu may ay occasion Mamadou Ndoye Bane su ma ñëwee di nga ma créé mais ma ma <laughs> léegi léegi léegi daal <laughs> affaire leen la yow kañ ngay dellu pire kañ ngay ñibbi pire man bis bu ma prépare bis bu ma bis bu sama valise fees feesee lan ah fees ak ay idée fees ak ak ak ak loo xam ne su ma ñëwee dama koy investir pire. waa amoo idée fi mu toll nii. non ba idée yaa ngi fi. waaw del mais idée yi dafa am lu koy lu koy lu koy mooy lan ah, dafa am lu koy activé. il faut nga am doole. doole mooy lan. doole jëm mooy nga il faut nga am koom-koom. Ah, idée yi ay idée kon yow Dakar da fi ñëw mais kon doo mës a dellu parce que si doo fi am koom-koom. bañ am koom-koom. foo ko jëlee man tëdduma di nelaw de. tëdduma du nelaw nan laa def ba am fréquence su rajo tuddee ko Kayor FM. mais fréquence da ngay déposer demande la. voilà léegi léegi dépos déposer taxu laa am de. Ah. déposer taxu laa am non non toog toog toog nekk am nekk ci ay normes am na ñu déposer te amuñu. waaye non mais normes yooyu kayit la rek. waaw mais ay kayit la mais am na ñoo. xam ne koom bi ngay wax waa léegi koom bi nga d'accord. tey jii ñaata ñaata koom ñaata koom nga soxla. pour non non bari na du doy. ñaata du doy man tey jii. Ah, man lu dul doy kay moo dul tey jii tey jii tey soo rombee pire sooy dugg si pire neel analyser pire bi analyser bi lycée ba école école école primaire ya fa nekk sax ñoo ko gën école primaire bu bu prime euh, nga xam ni nga ko defar en mille neuf cent mille neuf cent da ngay dellu non dinañ dellu mais da ñu toog ci plateau yu mel nii di wax autorité yi mais yow mun nga nekk pire ma invité la nga ñëw fii d' accord mais tey man man tey lijjanti koom non non non soo kon kon kenn du la déglu fii ndakaaru fii ngay ñëw ci buuxante bi boo xante di ñafe di lijjanti di yóbbu ci am na ñoo xam ne de Tambacounda Kédougou Kaolack mësuñu faa génn te koom bi leen suñu borom wërsëgal ñu ngi koy jot c'est parce que ñoom seen métier foofu lañ ko mën a liggéey man lii lan mooy sama métier lan mooy sama métier fi mu toll nii animateur waaw mun nga ko def fan naka laa ko fay defee sa Kayor FM mun nga fa taxaw waa léegi taxawagul pire TV waa léegi da ngay dem dox ko voilà yow xam nga gis nga yow xanaa da nga gis sama dossier yi <laughs> pire pire pire TV sax mi ngi sama dossier mais problème boobu il faut nga am man de mosuma gis ko eh kii bu leen ko fal meeru Pire de. njëlul Pire rek mu lànk. ne il faut nga am ay bailleurs yoo xam ni ñoom ñoo lay ñoo lay. financé pour nga bailleurs yi nekk ñu ndakaaru tey mun nga yàlla mun na la booleeg bailleurs yoo xam ne mhm. ñu nga Amérique wala ñu nga France wala ñu nga Danemark bailleurs yooyu nga nekk boo nekkee Pire sax si la ñu gën a sawar say mbir pas boo nekkee Ndakaaru soo ñëwee Pire kenn dalay kenn kenn du la xam balay di la lay kii ak waaw kon daal Pire tekki ñu tekki dara moo tax ma fay dem tout le temps moo tax may sonn ci affaire Pire nii te daal loolu tey xam nga tey jii man am naa naa sama ay waay man xoolal am naa sama ay am naa sama morom yoo xam ne tey jii ay doomu Pire lañu chaque jour ma bind ci ci Facebook bind ci internet bi ni képp kuy doomu Pire ak foo mënti nekk ci ca Sénégal. soo góorgóorlu dem dem leen ngeen boo demee Pire bi nga fa am internet. nañuy ñëw waaw am na internet nañuy ñuy ñibbisi kon kay Pire de manqué wul internet non dama bëgg doomu Pire yi di dellu. di ñëw ca dëkk ba. waa léegi pour loolu yow dangay dem dëkk nag gis ñu ñu gis ni que ah ndekete nag dellu piir am na njariñ. <laughs> non dëkk bi du solu du solution. dem ah. reste fa du solution. Ah, da ngay ah, tey jii tey jii tey tey jii tey jii su fekkee dangay dem sa kër. kii moo bañ dëkkam dëkk tey soo fekkee yow da ngaa wër xëy rek toog sa biir kër. <laughs> Eh. te xëyoo dem ca tool ya. Eh. sa njaboot duñ am duñ am. lu mais piir am na tool. déedéet comprendre li mu loxo wax de. tey jii mi ngi mel ni nga nekk sa biir kër rek toog fa nii da ngay xaar lépp fekk la fa. loolu mooy pire ku fa nekk am nay tool. ndakaaru am nay tool. Kaolack am nay tool. man samay tool ndakaaru la nekk su ma bayee la ma am ca mbay ma mu yóbbu pire. yow noonu nga koy doxal noonu la noonu la waaw léegi nag man dama la bëggul xamal nag ne piir mën na nekk tool waaw loolu laay wax tey yow mën nga dem piir am fa sa tool di ko bay am fa say ginaar di leen yar am fa say nag leen yar am fa say xar di leen yar am fa sa fréquence rajo di fa def Kayor FM am fa sa fréquence télé di fa def Pire TV mais loolu yëpp tey soo ko boolee euh, ginaar xar euh, nag bëy euh, tool rajo télé su xaliku nga mi lii ay ci ay wax rek la de mais loolu dafa am lu mu laaj. mais da koy jëmmal. waaw mais loolu. xam nga lan voilà d'accord ci li nga wax ni ci loolu laa nekk pour mën a loolu. kii moo bañ dëkkam léegi xoolal. wuyu ba <laughs> d'accord naa ni dafa am lu mu laaj xaw ma naan su ma ñëwee mu créé. dafa am lu mu laaj. xam nga pour man lan la njëkk a laaj. Mhm. ne fa. Mhm. balaa nga naan naam. ne fa ne fa. Mhm. te yow nee au pire. man musuma faa jógee. da ngay dem occasion non non non non non non man daal maa ngi soo gis koo xam ne ñu ngi ko naan dellul sa dëkk. waa Pire lànk wala waa Pire dinañ la woo dinañ dinañ la woo. waa Pire daal Mamadou Ndoye Bane franchement. Mhm. nee na du dëkk piir tey. du uh-huh. dëkk piir ëllëg. Uh-huh. mun na daal bu dëj amee bu ngénte amee tabaskeeg koriteeg yooyu bu ñëw waaye daal mun leen mu sax a waale. bu mu jógee Ndakaaru nga xamal péexu parce que piir amul président ASC laa fa xam nga tey ju mënoo nekk président ASC. waaye xanaa géeju ci dëkk ba xanaa géeju géeju Ndakaaru gee tax. piir amul piir piir géej géej ga Mboro la nekk. <laughs> bëru xol pir pir pir xam nga dëkk ba ci boppam moo te xam nga lañ moo ñu solo wax dara man ah. su ma dëkkoon pir ah. su ma judd woon pir ah. màggee pir sama ndey di waa pir sama mbaay di waa pir kon jamono ji pir laay dëkk <laughs> mënees na koo waat Mamadou Ndoye Bane nag lànk na lànk ba kaare yooyu eh, pir moom dëj ngénte <laughs> tabas tunkara korite tunkara tam xarit moom doo tam xarit fii nga koy na tunkara da nga maa bëgg a jaxase waa Pire mais xool waa Pire ci boppam soo génnoon fii nga dajeg waa Pire wala waa Pire yi nekk Sandaga ñu ci bari deneen xëy suba fii ñëw wax la man naka laa mel piir ndax piir laa dëkk wala xam nga lan moom li ñu sonol mooy ñun depuis 1960 Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall fii lu baax max la fu muy yem Thiès Tivaouane tëb Pire dem ngaay waa léegi da ngay boo demee dëkk Pire nag di nga tax lu baax yi ñëw fa. nu mu fay ñëw parce que yaa nga fa rek. non am nga yow boo nee fenn rek dafa am lu muy xëcc. demal demal Pire léegi nga gis ay. xéwal yu ñëw yow tey ji man su fekkoon. waaye xanaa gëmoo ni suñu borom yow foofu. yow tey ji su fekkoon man dama damaa damaa jógee armée rek dem toog Pire. comme ni ñu ko bëggee noonu. kenn du xam Ndoye Bane. non waxu déedéet waxuma loolu de léegi nii la waaye xanaa gëmoon ni suñu borom. waaw ah. tey boo ñibbi woon Pire sa wërsëg na la fa fekk si. wax xam naa loolu. kon kay ñibbil <laughs> est-ce que sama wërsëg est-ce nekkul ndakaaru gi. loolu yàlla moo xam. voilà mais sa dëkk piir la te moom nga bëgg mu defaru fi mu nii maa ngi teg ay jalon maa ngi teg ay affaire pour xool comme li nga wax nii route comme ni mu Moodu Moodu yi nekkee bitim réew man comme Ndakaaru am Sénégalais yi dañoo ragal seen dëkk yi. xoolal ñi dëkk pire du bi Dakar gi ma toog nii pour man Moodu Moodu laa fi. dama fi ñëw pour daan sama doole yàgg yàgg damay ñibbi ci pire investir yi foofu. yàgg yàgg bi xamoo kañ la moom. xam na xaw ma xaw ma kañ la mais maa ngi ko maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi dem ndànk-ndànk rajo boobu yow dénk naa la ko investir ma soo ma investir léegi ma ma ñibbil boo ñibbi léegi ñu dox ko <laughs> ñibbil ñu dox ko oh, xam naa su boobaa ma woo père mu waaw ñu dox ko non dinaa ñibbi man et puis man musu waaw léegi rajo bi man damay def engagement waaw Mamadou Ndoye Bane waaw bés boo ñibbee piir rajo bi ñu taal <laughs> <laughs> waaw baax na bés boo ñibbee piir piir TFM ñu Pire Pire Pire euh, TV ñu daal daf may daf may créel ay problème moom mii ndakaaru la juddoo mais dëkkul dëkkul ndakaar ay maamam dëkkuñu fi ay maam dëkkuñu Dakar. man nga dëkk du man maam solo yow yow. mi nekk non mais gis nga te moom ñibbiwul ñibbiwul seen dëkk. mi ngi Dakar fii dëkk man. wax nga ko fii. xam nga ban dëkk la ti mais am boo wax fii sànq. ban dëkk nga ni ñun ñëpp ci àll bi leen dëkk. non man ban dëkk laa gis nga gis nga. Ah, dëkk baan moo sa sol gis nga di nga gis nga tunkara. Ah. ña war a toog piir ña nga fa. di def la ñuy def ñi war a génn pour wuti indi ña nga fa gis nga association booloo liggéey boobu ma lay wax nga xam ne euh, kii dañuy def chaque chaque année ay consultation dañuy dañuy xarafal xale yi faj maire yi faj paa faj yëpp gratuitement ci ci ci ak euh, professeur Abdou Ba mais ñooñu ay cadre lañu yu nekk fii ci ci ci ci ci Ndakaaru di liggéey di di yóbbu ca dëkk ba te taxulee na toogu nekkuñu. boo ñibbee Pire sa wërsëg fekk la fa. te mu xoolal wërsëg googu mën na gën a bëri. Mhm. gën a barkeel. Mhm. que li ngay amee Ndakaar. incha allah incha allah dinañ xool te bés boo ñibbee piir nag nga woo de. ñu euh, ñu dox rajo ba mu tàkk. <laughs> Birame lan mooy yow bëggoo sama rajo bi tàkk. sama message parce que bëgguma nga ñibbi man dama bëgg nga ñibbi. man dama bëggu tey xoolal. ñi hmm. dëkk ñi dëkk si dëkk yëpp. Hmm. dem ñibbi dellu seen dëkk. ñoom El Hadj Ndiaye ñibbi Wuduru. ñoom Daouda Faye ñoom Macky Sall Macky Sall ñibbi Fatick. kenn ku nekk xool sa gox. ne man par force gox bi dafay baax. Hmm. te fii te baax bi fi muy commencé mooy man ma nekk fii ci gox bi di fi bay waar. Birame looy jeexale ban message. Euh, li may jeexale mooy euh, message bi Sénégal ñu ñëpp ko bokk te dañuy ñaan yàlla mu dem ca kanam comme sa tur bu rafet bii nga tuddee émission bi pour loolu nag képp ku nga xam ne mooy jiite mu xam ne ak ak yeleef mu nekk ci biir danaa leen jox firnde parce que question yu bëri ñu ma koy laaj am na fu ma nekkoon muy ndar ca course ba ma ñëwee ñu bëri naan parolier wala yee xamuñoon fan laa jaar ci université ak gestion yi ma def fii ak ci plan international yàlla dembal ne na ma ba may dem ma bàyyi fa fay IPRES sécurité sociale salaire mos ta tardé fexe boo déficit bu nekkoon 850 millions ñu indi ko ci 10 millions fay lu presque ak 600 cent million mu def trente yoo xam ne ay bor lañ amoon loolu nag métti na parce que boo koy def di nga dégg lu nekk waaye li am solo dama considéré ne man soldat laa woon ma dem fa waruma woon rusloo askan wi ndax tiit waruma woon rusloo samay waajur Val Joojo Njaay sama nijaay la Abdoul Aziz Sy Junior soxnaam moo ma may soxna di sama mbokk waa Ñaseen Kaolack xam nañ ni ñu bokkee waa kër Gédda Lakki Val Joojo parti socialiste yaatu ñu jël ñaari directeur depuis ba parti socialiste existe ba léegi ñu am ci ay cër ñu jël ñaari directeur benn bi ñu jox ma ko waruma leen rusloo waruma leen rusloo waruma le président Macky Sall ak acteur culturel yëpp loolu nag laa bëggoon wax ne fooy dem na nga considérer ne hmm. soldat nga bul xool sa post hmm. bu fekkee ne yuuxu mooy tax nga ñàkk ko it ñàkk ko waaye bu la kenn topp ëllëg di la jam parce que kayit yi mu ngi fi lépp leer na ci beneen bi tamit maa ngi ñaan comme gis naa ni ñu koy waxee fii acteurs culturels yi su ma sañoon ñu am benn protection sociale bu am doole te buggoon ak yéen parce que chaîne bu culturelle la ak ñeneen muy TFM muy Walfadjri ak ñeneen ak ñeneen ñu jàpp ci ba dimbale leen ku nekk mun nañ ko def par levée de fonds par l'international des acteurs culturels yu am solo 6 mille francs pour en cas de décès ñu jox leen 1 million 6 000 francs nit mën na ci jël ñaata nit. ah loolu du bëri. voilà donc loolu développement ay actions yu ndaw la yu ñu war a def te di wax aussi ne. réew mi ñun dañ ko gëm ak fu ñu mun di topp maa ngi jóge ci weeru koor du ma wax waxu caaxaan fépp fu ñuy mun di nekk muy ci culture muy feneen dañ fi bugg a liggéey ràññeewu ci ca côté bu baax ba suñ ko mënul ñu bàyyi ñu xam ne loolu war sa réew la donc maa ngi leen di gërëm di lay wax naan daal Sénégal pour que mu jëm ca kanam ñëpp war nañu commencé ku nekk liggéey te aussi kilifa yi ñu bañ rek am ñuy taxaw di leen ngurum dara ci nopp lépp lu xew ne ñu oo ñi ko ñi ko seqal wax ak ñoom bu ñu ko waxee rek dinañ gis yoon. mën looy baal looy jeexale. c'est que que Sénégal problème bi ñu am ci ci communication mooy dañuy suñuy suñuy communiquer dañuy déglu dañuy dañuy déglu du ñu déglu pour comprendre du ñu déglu pour comprendre li ngay wax dañ lay déglu pour tontu la. soo xoolee souvent dangay def benn affaire bu am solo dangay wax lu am solo loo xam ne ku ci ku ci sukkandiku day jëmale réew mi kanam. mais suñ ko publier ci internet bi wala ci journaux yi nit ñi au lieu que ñu comprendre li ngay wax message bi ngay lancé mais dañ fay naan waaye kii kii de xam nga pour tontu la loolu il faut ñu di il faut il faut ñu dindi ko. Ah, loolu tam sénégalais ñoo mel noonu loolu il faut il faut ñu dindi ko. Ah, su nit di xeex pour def lu baax ñu jàppale ko bu baax a baax. man mooy premier message ñu jàppale ko beneen message bi may lancé mooy. le président Macky Sall nañu dimbali ci sunu cadre yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk Pire am na ku am na ay Mbaye Ndiaye opérateur opérateur économique la am na ku ñuy wax ay non non ay nit lañu yoo xam ni tey jii dañoo bari xam-xam ay ñoom seen mbay dañoo am xam-xam non non ñu ñu ñu ñu ñu liggéey réew mi ah mais ñu liggéey fi ñu liggéey problème bi mooy ñun man man li ma metti mooy depuis 1960 Pire musul am député musul am maire musul am euh, sénateur musul am am na ministre bu dëkk musul am ministre bu dëkk Pire maanaam dafa mel ni dëkk boobu existé wul loolu nag lañ bëgg ñun ñu yëg suñu bopp ci réew mi waaw ñibbil rek dinañ ñibbi rek monsieur le maire Serigne Mboup personnalité bu mag la ci ah, réew mi PCA la woon PCA ba léegi nii ah. mais mais PCA bi loolu pour paa la non man man ah, message boobu man message boobu mais non non c'est loolu message boobu pour pour pour pire la beneen bi mooy nguur gi na jéem a investir ci xamal xale yi lan mooy corruption wax naa ko wax naa ko fi sànq te bàyyi séminaire yi gën nga li ñu tardel ci réew mi mooy séminaire tey ji yaa ngi wax ci ci affaire u affaire violence faite aux femmes euh, violence faite aux ngeen dem ne Médina tëju fa woo ay nit ñu tëju fa am ay pér jëm di lekk di naan di noos après ngeen ne violence faite aux femmes foofu lay fajoo non da ngay dem ci dëkk yi quartier populaire yi fay investir dem ci rajo communautaire yi woo ñoom doy baan ñu def thème ci violence faite aux femmes dans la euh, dans le département de Tivaouane dem da Kaffrine nga def fa thème thème yooyu noonu nit ñi ku mel ni ndoy baan wala keneen ak keneen di def ay débat askan wi di ko di ko di ko dégg loolu mu def ko séminaire ci rajo yi da indiwaat ay tee débat mais séminaire gars yi noos lañ fa nekkee ak séddoo alalu réew mi delloo njukkal Mamadou Ndoye Bane Mamadou Ndoye Bane animateur la bu ñëpp xam ci réew mi fële ca TFM mook euh, sama jigéen Mami Diop ak euh, Tata Dégène Chimère ñoom ñoo fa nekk delloo njukkal tamit euh, Birame Ndek Ndiaye Birame Ndek Ndiaye moom acteur culturel la les industries culturel au Sénégal l'exemple de la musique moom moo ko bind moo bind tamit au fil des émotions recueil de poème la sunu ay sunu tailleur di. Mor Fama Mor Fama Dioum fii ci Sicap Baobab ak sunu ay euh, technicien Amdi Fall Mohamed Ndiaye ñoom Lay Saare sunu réalisateur ak euh, Tafa Sow waa son waa vidéo ñoom Petit Dia ak Cheikh sunu monteur yéen ñi nga xam ni yaa ngeen ñuy bàyyi xel si àdduna bi yëpp madame Awa Diakhaté Touré fële ca France ak euh, toutes les filles dig daje ëllëg bu soobee yàlla wasalaam